waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna Right Ten Now ñu ngi ci AIBD aéroport international Blaise Diagne euh, de Diass n'est-ce pas Jabira cas importé yi ma doon dégg ñoo ma jaaxal Jabira est-ce dugg nga si ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey pour laaj leen cas importé yooyu lañ lañ si xam ak ñun ñooy dem def lu ñu xamoon la sax mm-hmm. waaye dañ def pour mu gën a leer si nopp importé bu gars yi wax tey tey mm-hmm. jàpp leen ne bu yàgg la mm-hmm. actuellement aéroport international dem moo am air Sénégal rek mooy bougé moo fiy jógee yóbbu nit ñi génn Sénégal waaye dugg Sénégal amul information yooyu ñu fi jëlee léegi léegi léegi lu leer nag kon daal nit ñi dañuy dem kenn ñëwul kenn ñëwul importé yi dégg ni mm-hmm. importé yu yàgg la maanaam avant ñuy teg suñu barrière naan kenn du fi duggati mm-hmm. nit ñooñu duggoon nañ ba pare mm-hmm. donc mu leer si nopp nit ñi quoi ñu gën a gëmaat suñu borom xam ne mbir bi ñëpp a ngi ci ñëpp ngi ci xeet waa ñoo ko déggandoo mu mel ne ñëwatul nit ñi dañuy dem ñu ngi woon fii rek porte bi ñu ubbil ñu ko SSN Diawira pour di servir